Dakarnet rek chers téléspectateurs vous pouvez varier les genres de programmes que vous regardez waaw pas DJ divertissez en piochant parmi les séries sénégalaises reportages débats politiques culture théâtre sénégalais ba ci film africain yi sport découvert religion ba ci variété ma ne la mbokk téléspectateurs yi dama ne daal su ngeen bëggee digg-digg daal Dakarnet rek information sodul am station gaaw leen ami cher internet bienvenue seen émission bu waxtaan ak ngeen ci ànd ak votre serviteur euh, Davida fi nga xamante ni mooy Dakar Net tey boo leen ma gisee sama toogaay ngeen xam ne tey dafa am lu spécial lu mu leen indil ci benn nit bu spécial euh, donc bu nuyoo rek après di ngeen xam ki mu doon waaye balaa nuy avancer dañ leen di wax rek seen émission waxtaan ak mun nañ dalal ku nekk ah puis li ñu leen ko indilee muy Net di émission boo xamante ni ñu ci bari dinañ ci participer yow mi may seetaan aussi mën nga ci participer waaye di leen di fàttali ni Dakar Net daal moom mooy seen chaîne YouTube bi nga xamante ni jamono ji lépp luy information daf leen koy jox en temps réel tey ñu dalal ki nga xamante ni euh, du def lu dul bàyyi ko mu présenté wu monsieur Seck ñu ngi leen nuyu. salaamaaleykum David maa ngi lay nuyu bu baax a baax di jox sa wàccuwaay di la gërëm di la di remercier seen euh, site bi xam dama koy xool guddeeg bëccëg te dama ci abonné ci sama ordinateur ak sama tablette. ami Cheikh internet ki ñu dalal moom mooy euh, monsieur mu Seck muy chef du protocole bu Youssou nduur également aussi nekk chef du protocole euh, groupe Futur Média donc nag ku ne chef ni protocole wax maanaam liggéey bu jafe. liggéey boo xamante ni dafa laaj maximum de concentration ci wàllum solu ndax nit bu nga xamante ni dafay génn ci këram war naa am nu mu mel waaye tamit ki nga xamante ni nag ci lañ ko gën a xamee moom ñu gën ko xam mu di euh, président Youssou Ndour comme ni ñu koy waxee kenn dootu ko présenté fii Sénégal kenn dootu ko présenté aussi Afrique mu di star boo xamante ni interplanétaire la koo xamante ni ñëpp xam nañ ko ci li muy dox rawatina nag euh, groupe Futurs Médias bi nga xamante ni moom moo di njiit bi tey ki nga xamante ni bu génnee. moom moo tax ndax li muy sol ne moo koy contrôler euh, mu di Kamou kon euh, monsieur Kamou Seck euh, sa relation ak Youssou Ndour waaw loolu moom dina ma neex trop Youssou man duma ko fa dox Youssou Ndour sax yéen turu artiste bi ngeen di wax mais man dama ko naan son excellence monsieur Youssou Ndour parce que li ko waral mooy Youssou suñu jaar-jaar du tey fi ma jaar ak moom laa bëgg wax du tey parce que je me rappelle très bien que euh, avant may liggéey ak dama doon liggéey ak euh, nem si yàlla Ambrose Gomis yàlla na suufam sedd si kaw sama mag jooju man suma xarit la woon maa doon complice am vraiment jaar naa bëri ak moom moom moo tax ba ma doon dugg bay liggéey fondation Isabelle Diouf nekk si say protocole madame Abdou Diouf si côté boobu ñu may nekk ak moom di nekk ak moom di nekk moom ci ay soirée de gala ay cérémonie yenn manifestation yu ñu di fa ñëw de prestataire moom yëpp Youssou nag xam naa nag dama ko neexoon période boobu mi sama façon liggéey man nag boobu xaw moon orchestre yi parce que bon li ma fi doon nekk daawul bëri mais ñu dem ba ci biir ñu dem ba nga xamante ni gis naa ne Youssou bëgg na ma liggéey ak moom manta tam bëgg naa liggéey ak moom parce que boobu ñu ngi koy soog a nommé ambassadeur de l'UNESCO xam l'UNICEF bon à travers Mbaye Dieye à travers Habib Faye nem si yàlla bi suma xarit boobu yàlla na suuf sedd si kawam ba ñu ngi koy jooyee ba léegi noppeeguñu ku baax a baax bi ba ñam bi ba yaa suma xarit la woon suma lépp la woon man moom ak Mbaye ak Youssou on avait des bons rapports boo xam dafa yàgg Youssou maa ngi commencé liggéey ak moom en 80 1996 boobu la alet ni mënoon liggéey ak euh, yenn kilifa yi ci dëkk bi ma ñëw di ko waaye di ko jege di xool ay messages mais ma gisoon ne man sama sa sama xel dafa ma joxoon ne kii ma waaj yi mën naa liggéey ak moom mun naa ko jàppale si yu bëri parce que est avec des musiciens il n'est pas des gens yoo xamante ni des gars yoo xam ne ils euh, des gens diplomates amu fa woon man ma ñëw di méttoon na nag au début xam nga rek foo dem day metti mais dem nañ ba xam ne j'ai des bons rapports avec Youssou loolu indi sama Youssou Ndour ba année bi man ak moom ba ñu nekk ba 2000 bi ba ba de 2019 euh, bi ñu nekk ba léegi man ak moom ñoo nekk. léegi Youssou monsieur le ministre son ambassadeur le PCA du groupe Futurs Médias mooy suma xol maay xolam. waa Europe xam nañ ko waa Asie xam nañ ko waa Afrique dëkk Afrique xam nañ ko Sénégal xam nañ may kan. loolu sax euh, dinañ ci wax ndaxte nee nañ il suffit rek mu xool la nga xool ko nga xam li muy wax. loolu dëgg la. dafa am benn affaire boo xam ne am sama diggante maanaam moom ak Mbaye Dieye fay ak Abi Faye nem sa Abi fay samay complice lañu Youssou dama ko su ma xoolee ba jàkkaal ma xoolee rek xam naa li mu bëgg a wax ci biir woy muy woy dina dina ma def benn geste boo xamante ne dinaa xam lan la ma wax te man su ma ko xoolee am na lu ma koy wax ak moom ci loo xamante ni ci mbirum liggéey rek maanaam ci mbirum liggéey bi muy liggéey musique bi ak nit ñi fa nekk ak maanaam yu bëri daal loo xamante ni intérêt la te xamul ne nit ki mi ngi fii walla nit war na xam ne nit mi ngi ci place bi muy nekk di liggéey noonu ba pare dama koy xool nag man soirée du ma baal ñëpp xam nañ loolu man moom lay concentré di ko xool rek ci kaw ba suuf buy dugg maa koy dugal ci biir seen mu ko seen bi suy wàcc maa koy wàcce oto bi maa koy dugal maa koy génne si oto bi bu ñëwee dinaa xool ni mu solo des fois du ñu bokk yoon ma jóge sama kër moom mu jóge am ñëw mais balaa mu jàkkaarloog adduna bi nit ñi di ko xool dinaa ceytu xool li mu sol lan la man sax yi ma gëm ak moom bokkul moom c'est un artiste mais man dama gëm sañse booy dama bëgg kub solu sama xol. mais mais bëgg so bëgg solu googu sax dafa feeñ si yow. non am c'est pourquoi Sénégal Sénégal nouvelle xamuñu mais man bi may nekk si affaire mode <clears throat> boobu. ñoom Papa Wemba Koffi Olomide mi ngi soog a nekk bees y' a beaucoup d'artistes zaïrois yu fi doon ñëw dama bokkoon ci comité d'organisation yooyu nekkoon maanaam y' avait que moo la doon doon indi fii nem si ak Demba Ndir yal nañu suufam sedd sama mag jooju ak euh, ku ñuy wax Baye ñi di wax pigeon nii Baye xamuñu koy Baye Ciss maa ko xam kii gars yi ne le milliardaire la ba ma koy xam fréquenté mooy Youssou Ndour kooku fi mu jaar ak man. dafa bëri bëri na trop Baye Ciss man moom fu nekk jaar nañ fa su ma duggee ci milieu boobu si kooku la njëkkee Ambroise Safo la ma gën a xelmatee si waajooju parce que boobu nekk gu ma man kañ maa ngi koy maa ngi fekkaat New Pop premier magasin prêt-à-porter au Sénégal New Pop bi nekk rue de Baye ñun ñoo fa doon nekk fan ngoon lañu doon sol suñu ay jean labis ay sancak takk ay fulaar suñuy fulaar yi nekk angle Ponty bi diggante rue de ak euh, café Ponty dañu doon saan bu ñu soloo ñun kirik la woon boobu maa ngi dëkk immeuble Brière en bu ñu tax noonu bi biir ville noonu dugg si cafétéria ay Aldo plantation dañu doon xool demoon naa ba nekkoon naa fi danseur temps Dakar City Brega ci danseur lañu lañ ba bokkoon boobu ñu ngi Jolof ñu ngi Cosaan ñu ngi woon Sayel ñu ngi Brimel bi nekk Bel Air dañu ne ba chaumière bu Ndar Sangomar bu Thiès on a tout fait étant jeune moo tax dara safuma dama foo suma àdduna teg ko à côté jëm côté liggéey bi nag liggéey bi ma ñëw rek yàlla si sës ma si sundur 94 ba heure bii man ak moom ma nekk bras droit am nekk xaritam mën naa ne sax du Youssou dañoo bokk ndey ak baay parce que fi ma jaar Youssou Ndour sori na te début bu metti woon na mais muñ rek mais njabootam famille xam nañu Youssou fu mu toll ci man man mun naa ne Youssou mooy suma man amatuma yaay amatuma papa mais Youssou mooy sama papa mooy sama yaay parce que confiance bi mu am ci man duma ko mosoo war te may nitam te ku nekk am nga sa ombre man mun naa ne mbéjee fe dee ne sama jumeau mais man may maanaam taqandeeru yuy sundoo su bëgguma dara lu ko metti si àddunaam bëgguma lépp lu ma koy defalee rek bëgg naa mu nekk lu neex ni ko tubaab bi dem baraañ ko day dem ba Europe sa tubaab bi bu am ak man sax tubaab bi di ma laajte mu ma koy wax ay kilifa ay ambassadeur ay kilifa maanaam ñu nekk fu nekk jaar naa foofu moom mais c'est nit boo xamante ni Sénégal war na war nañu dugg xoolaat kan mu Youssou Ndour war nañu xool Youssou Ndour war nañu xool jëfinam war nañu xool ay wayam bu dégg musique bi rek déglu voix yi muy wax ci biir waaye mën na yar ñu bari parole bi mën na yar ñu bari te mën na yee ñu bari te Youssou Ndour xoolal ku simple la nit bu simple la bëgg àdduna bëgg li ma neex sama mooy loo ko wax mu ne sama Sénégal la ñor Sénégal moo ko ñor gis na ñaati nit lay lay lay defar bi te kenn du ko xam ñaata nit lay dimbali bi te kenn du ko xam ñaata nit ñooy ñu lay emploi chaque weer mu fay leen te du la sonal ci dem mën na romb sax nuyu la avance dem kilifte boobu du ko wane dafa simple mais nag c'est un grand monsieur bu ñu demee ba sa Mandela ñenn ñi wax war nañu coytu ba exemple amoon na benn exemple si Obama gis am na yeneen yuy ñëw te gisaguñu am na xam ñu ngi fiy dugg di dugg génn Sénégal te xamuñu ku ñu seet fii mais il est un gars boo xam ne il est trop discret il aime la discrétion bëggul di def di ko wax day jëf rek moom mbiram jëf rek ba pare wu nag mel ni du moom même nga génn ko télé sax man des fois dama koy jàng xam ne sa waa ji forcé nañ ko mu dem rek mais bëggul moom lépp lu muy def da koy def discrétion te noonu la mel si njabootam noonu la mel si ay xaritam te fàttewul nag ay xaritu démbam yi nag ay papu démbam yi non fàttewul leen de man xam naa dara te c'est un monsieur boo xamante ni xamaguñ ko Youssou Ndour dañ dem ba ci kanam. ami Cheikh internet def naa li mu fi jot wax ci Youssou Ndour leex na ndaxte li ma gën a marqué ci waxam ji yëpp mooy la reconnaissance ah ndax Youssou Ndour moom Youssou Ndour Sénégal la Youssou Ndour Afrique la Youssou Ndour ñëpp la bien vrai que nit di nga ko gis de loin nga jàppee ko nit ko xamante ni ku tëju la waaye moom mi ko fréquenté depuis 1994 euh, 94 ba tey mu nekk ak moom aussi mu nekk nit ku modeste moom it parce que gis ko nii rek aussi wane na ni Youssou Ndour ndax moom mooy comme ni mu ko waxee takkandeeram ba tey du ñu wax lu dul ànd ak moom ci beneen mbir muy sa cursus mannequin ndax nee nañ kat kii mannequin bu mag la ah wane nga ko nekk instant bi surtout yow doo ndar-ndar sax dégg naa. <laughs> waaw il faut Sénégal yi xam dara man ndar-ndar laa ci ndey. ndar-ndar yi moom en général kenn yemuñu si saako ceeb beeg lekk ceeb beeg naan yenn yi mais solu ndar-ndar yi la. waaw ndar-ndar laa ci ndey ci bàyyi. suma yaay mi ngi soxe koo Gànjool suma baay soxe koo biir Ndar ñun ay ndandar lañu te ndandar jaruñu wax mooy kan ñun dañoo bëgg suñu bopp te on est fier d'être des Saint-Louisiens waaw bi nga bëgg li nga ma jot a laaj léegi waaw affaire man kii naa boobu man dama newoon te dootuma si waxati parce que maanaam jaar-jaar la woon beneen mbir bu ma bu ma ñëw ci man la <clears throat> ma exploité ko maanaam je suis le premier mannequin sénégalais ci góor ñi j'ai vu être le premier mannequin professionnel au Sénégal te bi ma koy def dafa am euh, ñaari doomu aadama <clears throat> ñoo xamante ni su may mag ñaan ñëpp wan nañ ma ginnaaw mais yal na suuf sedd seen kaw muy Demba Ndir ak Ambroise Gomis ñoo ñoo tax ma gën a def métier bi parce que dañ ma xool rek xam ne man mii arrangé naa leen si yu bëri ba pare ma yéen dëkku Afrique yi ba ñu bëri dañu yàggul sax bi ñu xamee ne man Sénégalais laa jamono yi may solu fii mun naa ne prêt-à-porter nekk Sénégal yëpp laa wax je pèse mes mots prêt-à-porter Sénégal yëpp maa leen lancé jamono y avait Fa Boutique Ami Boutique Nous de New Pop Exclusive maanaam bëriwul nay prêt-à-porter par jeudi lañu doon def ay euh, défilé au Sahel wala Sorano mais lépp mooy Sahel dañ ko def par jeudi ñu génn ko vendre ci guddi à la télé jamono yooyu dama amoon benn caractère boo xamante ni ma doon solo dafa doon impression nit ñi gars yi bu vingt bu vingt heures journal jeexee RTS bu jeexee rek xam nañu défilé mode mooy am ñëppay dem toog di xool télé bi parce que benn guddi mën naa sol euh, dix costume benn guddi benn soirée mën naa sol dix costume li ñu leen jaaxam mooy bu ma ko solee ba summi chemise bi ba génnaat ni may ñëwaati benn la lépp système boo noo koy jàngee la rek parce que man euh, j'ai été élevé si côté mannequinat bi nag de plus par un ami italien, Antonio. C'est un ami italien, il vivait à Brescia. Oh, dañu doon gisante ci dëkk Afrique ak Sénégal affaire yi waaju xool ma ma xam ne kii solu la gëm te moom mu xool ma mais ba benn année ma dem Italie noonu rek ci la duggante moom ma gis affaire rek ma dugg ci métier mu dugg ma di ma wan naka di ma wan naka di ma wan naka di ma wan naka dama ko doon dama doon sàcc sama liggéey sax dem di gis ji di xam ba ma def ko. après ñuy joxante par video mooy envoyé élément may xool di comme temps célibataire la sama kër laa doon nekk en ville di répété noonu yàlla indi ma wërsëg bon ma nekk ci Ambroise dem ma di ay défilé de mode au je prends mon kamu dem ma nekk way na kamu ñëw defal ñu xool mu ko di ko def j'étais avec deux amis Ousin Sall ak euh, waaye beneen copain ak Assane ñu dem dem di dem di dem dem ba ak yeneen gaa yu bëri suñ jamono yooyu même yéen a ngi dégg benn waaw ñoo abu aw ñu bëri xamuñu ko woon xam kañ la xam abu aaw bi mu commencé di woy léegi woykat la c'est un chanteur italien la demoon mais moom tamit fekk na ma sama liggéey bi ñuy parce que man rek mënu moo koon def boobu maa ngi doon liggéey ñoom Khadija si ay mannequin yàgg ay nabu ñaa ay mannequin yoo xam ne léegi macha allah ñi nga Europe di seen seen seen yore seen teranga di liggéey te chaque année ñu ngi ñëw Sénégal ñu ngi jokkoo ñoom ba si biir loolu sax maa ngi félicité comité des anciens mannequins yi nekk fi euh, groupe boobu bokk naa si ba ñoom bëgg nañu ma ne yéen gars yi bu doon dugg si gars ma bokk ci comité comité bi rek les anciens mannequins maa ngi ci biir euh, comité boobu am na affaire yu bëri maa ngi koy liggéey ak ñoom am na yu ñuy préparé groupe bi les anciens mannequins AMS ñu ngi koy réglé affaire yëpp xaw ma euh, ancien waaw di ancien mannequin du Sénégal am na projet yu bëri ñu am yoo xamante ne ñu ngi ciy liggéey man maa ngi nekk ak ñoom ñu ngi may xamal maa ngi xamal sama xalaat ba am na projet yu bëri ñu koy tëral si métier mannequinat bi looloo indi nag sama métier mannequinat bi boo mu am ay temps bu ñu doon défilé day tombé Youssou Ndour war fa jouer soir de gala boobu commencé gu ma Youssou Ndour ñoom fo lañ ma gën xoolee dañ ma doon dama doon toog dama doon défilé ay temps tourné rek gis toog si benn euh, kaw scène bi muy joué Europose ñu may xool mais muy apprécier waa moom Mbaye Dieye Faye ak gars yi di ma ab musicien di ma apprécier boobu miinu ma leen woon Mbaye Dieye Faye rek laa miinoon Mbaye Dieye Faye ñi may apprécier salle bi di applaudir may génn di ñëw bu ñu ma annoncé bu Ambroise annoncé sama tur tagg ma kër kër ma ñëw génn ak caractère métier mannequinat bi ñu ne yii mais kenn bi mu garaaw na di affaire yooyu ba lii di ñëw di ba xool tey jii ba indi mbir mi am relation du patron sax xarit la doomu ndey doomu baay ma mu dem tuddee ko suma doom même bu ma ko tuddee sama doom bi sax nekkul woon Sénégal moom dama ko bett dafa dem tournée européenne sama jabar nekkoon ci période boobu maanaam ma toog benn guddi rek sama xel ni ci Youssou rek ndax dama ma sori fu tukki wan ma ginnaaw dem tukki man ma nekk am lu ma koy liggéeyal fii maanaam ma toog ñaari fan sama xel ni ci Youssou rek ma génn ma toog rek. may wax ak may gént sama yaay di wax ak man parce que Youssou dafa bëggoon sama yaay nag ak sama pap nit ki da bëgg bëgg say waajur da doon dem demmeeku di seet sama ba sama yaay di defante ak ñoom ay teraanga di wax ak ñoom ci man am na ko yëg sax ba sama yaay di ko wax benn jour manqué rap ma ne ko sama yaay toog suñu saal benn jour mu ne ko Youssou ah man de man sa tànt la woon sa tante sa rab ko yaay sa magu yaay man la ñoo nekkoon Medina affaire yooyu ñoo doon àndandoo bokk suñu ay jotaay xam nga maire yi rek bëggoon àdduna bëgg seen jotaay yi fu ndar yooyu affaire yooyu mu ne ko nag mais comme nag kamu sa nit la dénk naa la ko wax dénk naa la boobu bi si wax moo tax mu ngoy si Youssou Ndour ba léegi mu ngoy ma ngoy si moom jàppante même ay frère xam nañ ne man mi maa leen gën bëgg seen mag Sénégal même soxnaam mi xam ne soxnaam xam ne maa gën a bëgg que Youssou Ndour mooy suma lépp. foofu sax dañ fay dugg ndax relation bi ak famille nduur relation bi sa relation ak ñoom. ñooñu sumay nit lañu ku bëgg seen mag rek bëgg nañ la te yaay Youssou yal na fi yàgg ànd ak wér mais bi suma maman la et suma xarit la daf ma bëgg papa Youssou la même chose fu ñu ma seen dañuy kontaan bu ma lay séenee damay bëgg. ñoom ñëpp nag góor ñi jigéen ñi dañ ma considéré comme ku ma bokk ak ñoom ndey ak bàyyi parce que ni ma mel ni seen mag seen mag lu nekk dégg naa ko si dëkk bi ni ma nekk moom lu nekk wax nañ ko dafa may nii daf may def lii daf may exploit daf may kii nga ko Sénégal rek senegal yi nañ bàyyi wax ku xamul diggante ñaari nit nañ ci neutre surtout yu bëri duma ko wax mais Youssou dama la xamal ne Youssou dama mel ni ku bokkoon ndey ak baay moo te je ne mange pas mes mots man taalibi sëñ Babacar Sy laa taalibi sëñ Babacar Sy moom laa gëm parce que dama bokk ci famille si bi maam nga ngom Paal suma maam la sama nijaay papa la sëñ Mansour Sy moo jox sama papa yëriñ jàmm man dama bokk ci famille si bi dama sës mais dama si xaw nëtatu ndax sama façon liggéey mais. Youssou Ndour duma ma la nee de moo ma gën a ko gis ci àdduna waaye fi ma teg man xam naaw sama njaboot xam nañ ko ba bi ma koy tuddee sama doom bi sax daf ko jëlee kaw il s'attendait pas man waxuma ko de ci biir ngénte bi ay boor midi une heure la ma woo dëkk bi mu nekk ndekete ñi nekkoon ci ngénte la woo nañ ko lu gaaw nekk mais dof mais saawaay saawaay de tuddee na la doomam ci saa si waa ji woo ma ne sëñ bi du ma bàyyi nga liggéey sa li nga bàyyi ma dox sama dox bii nit ki booy def dara doo doo ko wane xëy na nag yàlla moo tudd sama doom bii li ma koy wax ak sama ci gént moom moo tax ma jox la tur bi te ba léegi macha allah yi gère sama turandoo mi ngi koy gere naa li mu fi jot waxtaan am na benn richesse bi man sax dama ci mujj xaw a ma ne ku bëggoon a nelaw ndaxte pour man relation yu mel nii amatul ndaxte bu yàggoon boo daan jël nit tuddee ko doom ñu bari dafa ne ñu naan dafa am looy xaar ci moom. waaye ki nga xamante ne dalaa baa ba nga génn mu tuddee la ko ci sa ginnaaw kooku xam nga amul dara loo xamante ni mi ngi koy xaar ci yow donte. am fi benn relation boo xamante ne relation bu rafet la relation boo xamante ne dem na ba maanaam sa famille sax xam nañ kii ni boo nekkee fee moom mu nekkal la fii donc loolu moom mooy Sénégal Sénégal nag damay faral di wax Sénégal dëkku terang la kon waay waay bu ñu ko soppi loraange loraange gi nag soppi ko ci day yomb mooy ngay waxal nit ki loo xamante ni amul ngay dëkkal nit ki foo xamante ni dëkku fa loolu lépp nag dañu ko war a baax ndaxte bu dee dañoo nekk ci dëkk boo xamante ni dëkk Serigne Touba ak Limam Laye ak Baye Niass ñi nga xamante ni ñooy suñu kilifa yu mag yi ak jàng beeg yëpp nga xamante ni ñun ay valeurs yu baax la ñu xamee kon waruñuy di jël yenn motifs yi rek di koy coller ci ñenn comme ni ñu koy waxee votre serviteur la Davida ci seen émission bi muy waxtaan ak fi ngeen koy amee muy Dakar Net saa su nekk rek leneen lañuy def di indiwaat leneen mais du ñu yem faaw ñu laajaat ko leneen euh, damay am loo xamante ni aussi dama koy bëgg di comprendre ndax euh, nga nekk chef du protocole Youssou Ndour nga xamante ni fu muy dem yaa ngi fa léeg nga bàyyi kër bàyyi soxna bàyyi doom ana nan lañ koy dundee sa waa kër. non su ma ko mis nañ loolu mis nañ ko ci man déggu li ma la wax. man Youssou Ndour maay bakkenam may tànkam maay bëtam man Kamou sekk maa ko wax te ñëpp xam nañ loolu maay bakkenam may gémmiñam may tànkam may bëtam lu nekk ñi koy du ma tontu mais bés bu tontu amee ba ma xamal senegal ku Youssou Ndour boobaa la ñuy pare ci man. waaw waaw bëri na dañ gis muy way nii rek muy dem rekk ñuy topp wayam bi rek mais ku baax. ku fi gën su gënul du fi gën bu fi gënul kenn du fi gën nitu sutura la day eh, dafa ay nit si sutura kenn du ko xam moom sa bëgguñu def loolu mais man maa am sama xol bu fexee rek may bëgg wax yooyu nañ ko ñaanal mu yàgg fi lool baax na Sénégal de nit ñi xam nañ fu may waxee dañuy liggéey liggéey bu nekk nag am na ay difficultés. waaw ah, bien sûr. bëggoon nañ xam yow say difficultés ak. moo xam Sénégal wala ngeen def tournée ak yooyu. non difficulté da dara. waa boo ko xamee di nga xam li mu bëgg ak li mu bañ wax ngi noonu. léeg-léeg ngeen am ay laalo yu saf saf yoo saf. du ma safanteeg moom du ma laalanteeg moom man lu mu def rek bàyyi faalam laa. je suis je suis un jeune diplomate je gère la diplomatie uniquement je ne suis pas un musicien je ne suis pas le manager. man je gère image yu waa ji lay gérer man image am lay gérer envers les diplomates envers les autorités envers le public loolu lay gérer. mais war nga ñoo mën a wax benn anecdote boo xamante ni comme yéen ñaar moom depuis bi ngeen nekkee ba tey am na loo xamante ni moom war nga ko mën a may ñi lay seetaan. waaw man de ah. damay wax ngir yàlla de je ne me rappelle plus fan la Youssou Ndour musee mer ci man dëgg dëgg de rappelé ko de. mun na am mos naa ko tooñ si domaine liggéey bi mais ni ma bëggee du ko du ma ko wan Youssou ak ma gëm te ma gëm ko loolu man awma ci badin y a des gens xam dañu may mere sax bu ma ma jox la benn exemple damay nekk sama diggu liggéey ak moom <coughs> sur les avec des sur des grandes cérémonies yu mag yoo xam ne ay président ministre am ma ñoo fay nekk ay kilifa yu mat sëkk xam nga nu ñuy xam Youssou Ndour day ñëw <laughs> loolu après laa ko soog a xam dégg bu ñu ma séenee rek bu ñu ma gëstoo xool ñu ne eh mu ñëw dama mos ñu ne ma oh léegi mu ñëw ñu wax noonu ñu ne oh ak man sañse ma ne eh waay man doomu jàmbur la lan mooy sañse bëgg sama bopp rek nii laa mos a mel man xamal ne senegal yi ba may bëgg sañse ak solu xamoon naa fi laay mujj parce que jamono ñi sol bi ñu demee école ay tenue kaki lañ ñoon sol ñu bind Sonadis ak ay bataa dama koo rafete ba du ma école damay xam ne man mi solo naa solu écolier ak deretu ndar ndar bi quoi ban ku bëri tiitër laa nag sax se voit parce que ak li nga takkee lunettes yi nii dóor cravate bi rek ça veut tout dire non du sax dama bëgg sama bopp dama bëgg sama bopp xam sama bopp nit ki da ngay xam fi nga jógee xam foo soxee ko nit ñi dañ kamu kamu kamu rek Seck laa sant santuma Camara Seck laa sant sama yaay Gànjool la jóge sama baay juddoo Ndar man ma jóge Ndar ñëw Ndakaaru dama teel moom sama bopp nag maanaam dama teel yor sama liberté bopp à l'âge de 15 ans la génn suma papa kër yaay jël sama responsabilité ba tey ji may wax nii nit ki doo wax ki nga doon man j'aime ma famille man dama bëgg sama famille ma bëgg sumay mag bëgg sumay rak bëgg samay jarbaat bëgg samay sët bëgg samay bàjjen samay tante mais nag yàlla mooy dogal en 2010 si la sama papa si may génn àdduna ci semaine la ñu rawante ñoom ñaar amiin semaine lañu ñu rawante su ma yaay nekkoon nag maanaam suma complice yaay nag ñenn doom yaay man la woon suñu famille wala réew nag une dem ma mère génn paa bi da ko na mbàpp nag pour nit ñi xam kuy sama papa en plus sa pap mooy Alassane Seck l'ancien arbitre international de football jamono ñu Youssou Ndiaye Pape Sall Ngom kooku mooy sa pap moo ma jur man ci famille sportive laa bokk te pratiqué naa sport bu bëri soog a ñëw léegi bi loolu amee nag ci laa nekk nag ba nii parce que nag man bëgguma di faral di wax ci télé yi wala internet yi parce que ko bàyyi woon parce que Sénégal dafa am ay questions yoo xam dañ ko doon sa man dama fiir man suma nit bëgguma ku laal sama nit te ku laal Youssou Ndour laal ma man ku laal Youssou Ndour laal ma ba ñu mas dara de lu nekk dégg naa ko nag ci man mais fi senegal la wax rek nañ bàyyi wax wax baaxul. keroog nga war a wax ku Youssou Ndour kon nañ bàyyi wax ñoom léegi léegi ma bëggoon nag euh, laaj la li nga xamante ne xëy na dina la xaw a kii maanaam ci wàllu sport boobu nga doon wax am na ci boo xamante ne dégg naa moom rek ngay pratiquer ban la waaw man nag ancien athlète laa woon trip sou laa doon def ci école Mansour Dia ma jóge fa doon def judo après yàgguma ci noonu lu tax ma génn si tennis ak golf. waaye comme ni ñu ko waxee sànq ñu ngi tudd bay tudd li nga xamante ne mooy milieu mannequinat bi boo doon def la comparaison mannequinat démb bi ak mannequinat bu tey bi lan lay doon. milieu bi non non y a une ñun dañ doon jaay li ñuy sol yëre yi ñuy sol dañ doon jaay nit ñi di ko jënd taxaw mais léegi man kii dañuy jaay seen bopp lañu la ñuy jaay lu wóor laa la wax. seen bopp c'est-à-dire seen bopp comme. cest à pas jaay seen bopp. fësal seen bopp seen taar ak yooyu. man waxuma ne ñuy def yu bon yooyu non non non wone lieu yëre yi ñuy sol mais ñoom seen bopp la ñuy wane dañu ko génne beneen télé rek bu soo gis si biir biir euh, almadi muy jaabante fu nekk pour gis leen ma te métier bi ça s'apprend ñun météo na si ñun de. mais agence yi ba tey kon agence yi aussi parfois dañuy ñëw rek ubbeeku. ñun suñuy jamono benn agent la amoon man maa maa demal sama bopp. ñu dem bàmmeel agence boo xam ne Fat Jim moo ko ubbi woon Fat Jim Fatim Jim symphonie moo doon agence bi amoon Sénégal moom ñu reconnaître si la ñëpp reconnaître léegi nag maa ngi dégg lu nekk ku nekk am naa agence <laughs> léegi koo xamante ne dafa nekkoon doon ànd ak artiste retourné di defal loo xale si boîte de nii wala si yenn place damay ree rek man leen c'est bien am na bés maa ngi ñëw dem doon dem fële si plaza am na samay doom wàcc noonu kii kii bi tax ak si plaza ma kii place boobu waaye den ak si plaza place de souvenir ma gis ay xel di répété ak benn waaye di leen répété may romb leen xool rek may fàttaliku sama jamono ma ne ciy àdduna man ni lii talatuma ko xam lu tal sama Youssou Ndour mi ak sama njaboot laa tal yi génn naa sama xel waaw kon nag euh, boo waxee ci Youssou Ndour ba tey ñu revenirat xam naa ni li euh, ñu fa desati bëreetul sax pour ñu wax ko mais situation Covid 19 bi jamono ji xam naa ni amul na lu bari lu mu yàq ci sa côté yàq ko ci côté président Youssou Ndour lan lan la ngay wax ci loolu. loolu kon ñi mu yàq lu bëri nañ du ñun rek <laughs> dëkk bi kenn dara doxul. mais par exemple yéen tournage yi nga xamante ne euh, avisé woon nga. def ko avisé ah. tout est woon yëpp. lépp c'est annulé. lépp annulé nañ ko nañu ñaan yàlla rek comme ni ko président son excellence monsieur le président Macky Sall wax nañu respecté barrières yi te ñu sol suñu masque def ni man masque bi dafa wóor masque bi sama kër la may tàqali waaw xanaa intérêt moo tax ma dindi ko nii mais nañ ñaan yàlla rek taw bi muy taw jamono yii yàlla na suñu ba def ndox bi mu sotti mu yóbbu mbir mi nit ñi nekkaat seen ànd ak seen sago nekkaat seen liggéey mën jàppale seen njaboot je vous dis quelque chose y a beaucoup de pères de xam ne ils sont fatigués période bii ci côté jigéen côté góor mbas mi yàqal na lu bëri senegal te ñi nekk ci ndox mi maa ngi leen ñi xam ne génn nañu àdduna maa ngi leen di jaale jël masawu seen mbokk yi yàlla lu mu def kenn xocc ak moom xëy na ndox mi ñu sottal jamono bii moo xéwal la boo xam ne mooy dindi affaire mu jóge ba faw te mbas mi. nañu ñaan yàlla mu jóge fi sonoon na ñëpp mais nag ndogal yàlla day day natt ay jaamam de te ñun on est des croyants dénk suñu bopp mag ñi fi ñi fi tëddëdd yi fi nekk suñu kilifa yi ngir yàlla ñi ngi def li ñuy war ñun nag nañu fas jom di sol suñu masque di gérer li président son excellence monsieur Macky sàll wax ñu jàppale ko pour dëkk bi naataat ñu nekk seen jàmm yéen ngeen mën def seen liggéey seen waajur nekk seen jàmm parce que tamit ne benn affaire am na mbas bi mag ñi la gën a sonal te xale yi nu ñu dimbali mag ñi ci kër gi nañuy sol masque gis naa nag des fois gis ay nit yoo xam ne duñu ñu sol masque damay tiit sax man de saa yi mu bëgg a génn su ma xaar samay doom rek sol naa sans masque parce que man ci mbooloo laay nekk mais je me méfie maa ngi sant yàlla je touche bois maa ngi ñaan suñu borom ci barke sëñ Babacar Si ma yaakaar sama lépp sama àllaaxira sama lépp ak waajuram ak bis bi ñu jógee muy bëgg a dem bu maam Abdou bi yàlla sotti mbir mi nekk fii lu bëri bëri parce que tamit nit ñi euh, lu ñu am mooy ñun nañ sant yàlla suñu Sénégal bii <laughs> waaye nañ sant suñu Sénégal bii ñun la am ñu bëri bu ñu ko amoon euh, naat nañ mais nag na xoli nit ñi nekk benn nañu bëggante te ñu bàyyi di wax nit ñi lu bon loo xamul si nit ki et li gën bon Sénégal mooy. dañ lay wax loo xam xamuñu la ko. jugé à distance xamuñu la. xamuñu la man nekk dégg naa ko sama der bi ay jamono mais nag du ñàkk nag damay bëgg di am ay noon samay noon maa xam ni may di fajee dem naa ba ay noon yoo xam ne dañ nekk samay xarit léegi man moom aw ma problème taal bi sëñ Babacar Sy laa xam naa sama bopp man du ma noyyi lenn lu dul sëñ Babacar Sy trône ma nga sama kër su may génn naa ko gis. dina ma ñaan te ku dugg sama gi xam ne fii kër taalibe Cheikh la. ku dugg ci këram xam ni eh, taalibe Cheikh la man eh, ma fas yéene wax ak moom ci benn kàddu rek muy benn laaj eh, muy moom lan may plat préféré balaa ma kaa tëj. waaw ñun daan dañu man nag ni gaay bëggee ceebu jën man supp kañ ak maafe. maafe du ma ko fooyee. parce que bambara ma yar. moo taxit am nga eeru eeru bambara. bambara moo ma yar su ma jabat turandoo moo ma yar man su ma yaru mais dama doon dégg nekk sama yaay nii rek mais su ma jëbat turandoo moo ma yar moo ma def ba li ma nekk nii ba ma nekk ba mu bëgg maafe maafe bambara parce que euh, cere bëgg naa ko mais nag euh, en tant que boy town nag bante yi yéen xam leen bant yi ñun jame ñu dem bante yi Sandaga la woon dañu leen joué soit bu ñu pare rek bu ñu demee pare dem banteer toog ci awsa yi dañuy dugg bante ba doy am ak suñu affaire yi nag suñu deuxième biir suñu affaire ñoon àndal mais léegi mag la ñu dañu ay jabar yore ay doom fu mu nga jëw talatuñ ko lu ñoo liggéey bon ñu gis ni euh, am nga aussi benn carnet d'adresse bu riche surtout li nga xamante ne mooy sa relation ak ambassadeurs yi surtout président Macky Sall euh, lan la nan nga ñu si mën a wax waaw loolu moom lu ma neex la Macky Sall son excellence excuse-moi son excellence monsieur le président dafa yàgg nekk sama nit suma nit la ba mu nekk sama nit boobu il était le il était premier ministre au Sénégal mu yàgg ma seen ci milieu bi man mu sopp ma ma sopp ko yàlla def suñu ñu jegante ñu may gisante ak moom te muy nit koo xamante ni ku baax ku bëgg réewam ku bëgg famiyam ku bëgg njabootam te bëgg Sénégalais loolu la gars yi du ko mais Macky Sall ku bëgg Sénégalais yi la gëmulul Sénégal la gëm te man nag suma xarit la man suma président la suma xarit la man magam laa te fu mu ma seen jox na ma cër même cortège day romb ma nekk si buntu almet wala benn côté mu séen ma su ma nekkee trop mu seen ma rek il faut mu tàllal ma loxo yàlla laa ko def man dama fay ko avec son excellence di ko remercier si li muy defal Sénégal yi ak li jamono yi mu nekk nii ak li mu nekk yëpp nañ ko ñaanal ba mission bi mu accomplir ko ba pare nag maam gouvernement yu nekk ci wetam ñu bëri sumay xarit lañu ñoom ñëpp yum suma xarit benn bakken la Souleymane Ndéné Ndiaye suma xarit la Abdou Karim Fofana suma xarit la maanaam ministre yëpp daal bon ñu nekk si état bi gouvernement Macky Sall ñu sumay xarit la ñu damay nekk ak ñoom damay gisante ak ñoom damay nemmante ñu ñu nemmalante ñu day si ay sermon daje fu nekk bon dafa muy tukki bokk ñoom avion yëpp dam maanaam bëri naa si eh, ñoom ñëpp sumay xarit laa mën wax daal te aussi j'ai des amis personnels au Sénégal ñoo xamante ne ay kilifa lañu am ñoo xam ne sumay xarit lañ ñoo xamante ni bëgguma tudd seen tur mais ñoom xam nañu xam na xam nañu te sama patron Youssou Ndour xam na li ma seq ak ñooñu relation amitié boobu ma seq ak ñoom te duma ko wane man bu nit ñi di wut alal man wut naa ay xarit te buntu bu ma fëgg bu ma tegul tapis rouge secrétaire bi dina jóg chaise am taxaw recevoir ma dugg ci biir ñëpp ba pare nag ma am ci nit koo xamante ni ñaar nit yoo xamante ni vraiment dañu fort ci man Moustapha Ndiaye le président des notaires Moustapha Ndiaye suma xarit benn bakken la euh, pare nag euh, maam jigéen boo xamante ni moom tamit dafa fort ci man muy Nancy madame Guèye Nancy Niang directeur transcontinental suma jabar la suma xarit la suma lépp la ba pare nag ma am xarit boo xamante ni dafa sincère ci man maam booy Diao nit ñi mosuñu xam ne Mame Boye Diao ba ma xamee du tey te ni may deflanteeg moom di gisanteeg moom ci côté liggéey ma koy jàppale si yu bëri mu di nemmeeku bëgg ma man noonu laa ko bëri jabaram sax xam na ne Mame Boye Diao suma nit la mais man bëgguma déranger kenn man mënatul lay mën na ma sumay xarit ci dëkk bi buñ fi jógee waaw Pam Ngom Sedima Pam Mayel Diop cest dama bëri xarit yoo xam ne mënu ma tudd ñëpp ñëpp lay ñaanal rek parce Cheikh Amar maanaam kooku suma xarit la suma rakkal la ba pare nag ma nekk chef de protocole am parce que nit ñi jaaxoon nañu ay jamono ñu ne yee Youssou Ndour ñàkk na ko mu sekk uu Cheikh Amar récupéré nag ma ne ko non Youssou mooy Cheikh Amar Cheikh Amar mooy Youssou Ndour te Youssou moom mu yóbbu Cheikh Amar pour mu jàppale ko si seen protocole doon ko gérer ba léegi maa ngi koy ñaanal fi mu nekk ni almaañ si fajam bi. yàlla na ko suñu yàlla saafara ba mu ñibbi seek jàmm ñëwaat ci liggéey njaa njaboot di ko xaar te loolu namm nañ ko trop mais saa su nekk maa ngi jokk moom téléphone nag maa ngi koy nemmeek mi ngi may nemmeek maa ngi xool nu mu mel mais nañ sant yàlla alhamdulilahi rabbil alamin sëñ Touba dina ko fayal et puis sëñ Saliou bàyyi ko te Cheikh Amar fi mu tëdd day faju rek dara jotu ko faju nit ku nekk da am euh, jàngoro bu am mais dafa dem faju noppal yaramam tuuti mais bu loolu ñëwee rek euh, yàlla jàppale rek dina rétablir incha allah bu neexee sëñ Saliou et puis bon bu neexee sëñ Babacar si dina dellu Sénégal te nañ Sénégal yëpp di ko ñaanal Cheikh Amar dañ ko war ñaanal ku baax te yaaram man bi ma ko di ko liggéeyal liggéey naa ko huit mois ba un an xam naa ko Cheikh Amar te xam naa fu mu toll ci man te xam naa ni ma gëmmee lan mooy kàddu kàddu yu mujj yi. li may def mooy euh, di leen remercier man nag dama am kersa man je trop timide mais nag. gëwma lenn loolu suma liggéey mooy suma teraanga mooy suma lépp te maa ngi remercier suma jabar di remercier samay doom di remercier samay mag bu jigéen ak samay mag yu góor ak sama famille samay mbokk yëpp parce que sama mbokk yi bëgg nañ ma lool mais nag xëy na man maa maa ko jëf parce que suma ndey suma baay noonu lañ meloon man lu mu am rek bokkar naa ak nit ñi damay ñaan ñu ñaanal ma rek ma ñaanal ñu ñëpp ñaan ñu ñëpp ngeen am jàpp am jàmm man lu ma am rek samay mbokk laa ko amal mais benn affaire naa la ko mu jox mooy duma ci tay la ko wax man may Bakary Youssou Ndour may Baye Fallam waaw c'est mon ami c'est mon frère su ma waaya ngoog maa ngi remercier groupe Super Étoile bi yëpp Mbaye Dieye Faye ak orchestre bi yëpp di remercier groupe Futurs Médias bi may liggéey en commençant par je ne parle pas de de Youssou Ndour de son fils sama directeur général Birane Ndour Ndiaga Ndour Bouba Ndour toute la famille Ndourène ak directeur nekk si sa nekk si biir groupe Futurs bi yëpp ñëpp maa ngi di remercier dañ ma jox cër boo xamante ni ak euh, technicien caméraman ni point de son yi dañ ma teg foo xamante ni dama xam ne man am naa defa aw ma defa xamas dara mais man je préfère lépp lu ñu liggéey rek nañu nekk benn te liggéey bi na rafet te euh, ñoom wan na ne ay preuve kilifa dañoo si kër gi sax ana Kabou Seck ak ñoom ana grand Camou ma ñëw gérer donc en tant que chef protocole du groupe Futurs Médias mais je remercie le personnel du groupe Futurs média jox nañ ma cër boo xamante ni am ñoo xam maa leen mag am ñoo xam seen papa laa mais sumay nit lañu man ñoom laa am mais nag super étoile ñoom sama gars yaa nga ko nag ñooñu laa nam ma parce que nam mën na mooy nañuy play may xool di déglu rek man loolu moom may enjoy fa am ay morceaux yoo xam ci biir buñ koy weer damay beru xam naa li muy sab si man te waa ji bu woyee <laughs> xam naa <laughs> woy lu muy jëriñ woy Youssou Ndour na ci gars yi di bàyyi xel te nañu nañ koy ñaanal nañu ñaanal Youssou Ndour ñaanal ay waajuram ñaanal mboolu fi nekk Sénégal yëpp ñaanal son excellence président Macky Sall lii muy sas di ko def si may ko ci ndam ba ñu xam lu yàlla tudd rek muy noonu te loolu lañu ñaan te nañu ndox mi fi nekk yàlla na ko suñu borom jëlee ba ñëpp nekk seen kii te gars yi nañu respecté barrières yi nañu respecté barrières yi te nag eh, yéen tamit je vous remercie dama leen di suivre te ma allah seen liggéey rafet na doolu offensé nit. waaw ah, <laughs> man moom dama kontaan dama dama a euh, am lu ma neex tuuti parce que comme ni mu ko waxee ndar-ndar la euh, mu ànd ak tamit benn modestie boo xamante ne man mii sax jaaxal na ma parce que comme ni ñu ko waxee c'est pas n'importe qui c'est un grand euh, nga xamante ni moom moom la nekkal mu di président Youssou Ndour comme ni mu ko waxee neena na nit ñi xamuñu ko. te nit ñi tamit boo koo xamul it dafay baax loolu it nga jéem ko nga jéem ko nemmee ko xam ki mu doon ci kaw loolu man ma jaar fa tamit sant ñi nga xamante ni ñoo tax ma feeñ euh, muy sama ñaari caméraman yi euh, Baye Djili ak euh, l'infatigable donc maa ngi leen di jox dig daje ci beneen émission bi nga xamante ni Davida ngeen ci ànd ak votre serviteur fii rek boobu nag mën naa leen big up Dakar Net ci kaw ci kanam pour Dakarnet Rek, chers téléspectateurs, vous pouvez varier les genres de programmes que vous regardez. Waouh, pas DJ, divertissez en piochant parmi les séries sénégalaises, reportages, débats politiques, culture, théâtre sénégalais, petits films africains, sport, découvert religion, petits variétés. Mané le mbok téléspectateurs yi dama né dal su ngeen bëggé dig dig dal Dakarnet Rek ci information sodul amtation gaaw leen dugg